ramadaanangi weru yaru mande ramadaanangi weru njëggale ramadaanangi aha weru yaru mande ramadaanangi weru njëggale mooy gan gi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki yéen ñi ànd ak ñun ci islam tv yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq ak barke ñoo ngi rek ci émission bii nga xam ne ñu ngi ko tuddee kaañu xam yàlla te sopp ko bokk na ci tur yi borom bi tabaraka wa taala al alim niki noonu al xabir ñaari tur yooyu am nañ différence waaye ñoo bokk ci luñ jëm al alim mooy ki xam al xabir mooy ki dañ kumpa mooy ki nga xam ne dafa xam mbir yi ci nam gën a sewe boo déggee ñu ne diw xabiir la ci nangam mooy da koo xama xam xam ya gën a xóot nga xam ne boo amoon jafe-jafe ca loola ca la ci gën a xóot la nga xam ne boo ko yóbboo ca ña ko xam sax léeg-léeg ñu tële ci moom nga ko yóbbu mu réglé ko kooku dañ naan kooku xabiir la moom borom bi daf ñuy wax boppam ci ne moom lépp la xam وهو بكل شيء عليم لب لقر وقال نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يلا بيكن لب قم قم كون بغين سيرلو ñaari bind yi yi weesu ci as-sami' moy ki dig top ba ca top di al-basir moy ki gis lepp nga ñew ci bi muy al-alim di ki xam lepp mi ngi dig lepp mi ngi gis lepp mi ngi xam lepp xam nga nit ki leg leg nga dig dara waye li ngay dig xamoko kaddu gi yang koy dig nonu rek mi ngi wax de waye xamoo lan lay wax wala mi ngi wax ci làkk woo xam ne du saw làkk wala ngay gis dara yaa ngi koy gis de waaye li ngay gis xamoo ko nga naan waaw kii di ñëw moom kan la war a doon kon xamagoo jëmm ja wala lii moom lan la mooy xamoo lii lan la amaana yaa ngi koy door a gis wala xam nga ca dara waaye am na ca loo ca dese am na ca loo ca xamagul borom bi tabaaraka ko taala nag ni muy dégg lépp di gis lépp noonu la xamee lépp maanaam moom xam-xamam dafa matale amul lenn lu koy ump moo tax moom borom bi xam-xamam nekkul li feeñ kese de la nëbbu da koy xam bu baax nim xamee li feeñ noonu la ni xamee liy nëbbu xam-xam it ni xam-xamam it li teew rek lay xam de la paase da koo xam li teew mu xam ko li ñëw mu xam ko lu ci ne bu amee nan la nara a de buy am kañ lay am buy buy am nu muy ame fu muy amee yépp borom bi xam na ko kon moom dara du ko bett loo xam ne day jékki am mu door koo xam loolu amul ci mbiru borom bi moom lu ne da koo xam daa xam li paase lépp ak li teew lépp ak li nëbbu lépp moo tax mu ne aalimul xaybi wa shahaada moom mooy ki xam kumpa ak li teew li feeñ ak li nëbb innahu yaalamu sirra wa axfa kon nag buñ xamaatee lool danañ day daal di gën a dolliku kon ci résultat bi ñu waxoon ne moom la ñu ñaari tur yële di jural muy ragal yàlla buñ xamé ne borom bi tabaraka wa taala mi ngi xam ñun li nekk ci suñu xol li ñuy def ndax yalla mo tax wala yalla taxul yalla xam na ko mom nit ñi ñom man nañ ci baña xam dara ndax nit ñi mom li ci gëna bari ci li ngay def ci lañuy sukkandiku di atté maam li feñ ci lañuy sukkandiku di atté li neub fekk leg leg li feñ ak li neub man na am différence leg leg nit ki man na feñal lu bax te fek safan ba mo nek ci xol ba ya li muy def ak jaamu yalla la lu yalla digli la waye fek mom defu ko ngir yalla xam nga kon lolu baxul lam na bu baxul da ko def ngir aw tur da ko def ngir aw tag da ko def ngir mbolo da ko def ngir alal da ko def ngir nangam ak nangam ak nangam wa yalla taxul yalla taxul te ne ne yalla tax mi ngi wax wax fekk yàlla taxul mu wax lii jubluwu ci jëmm yàlla ji de mi ngi jëf-jëf ji fekk yàlla taxul mu jëf lii yàlla moom xam na léegi kooka kon moom it xam na di moom nit ki moom ci boppam bu dee ci mbir mi ci boppam la aju moom dana ko xam xañ na bu dee aju ci keneen la ku dul xam waaye moom ci boppam moom moom mi jëf moom xam na moom lu tax mu jëf-jëf ji bu fekkee ne xam na loolu ba pare japp ne dal mom liko amal solo moy nit ñi gërëm ko wala nit ñi jox ko lim soxla mo xam autour la mo xam place la mo xam lutax moy def koka mom mom lañu ñuy tuddee ngistal koku wutul tuyaba bo bëggee nit ki bu bëggee xam mi ngi ngistal wala ngistalul na xol ba xam mi ngi li muy def tuyaba la ci wut ak ngeureumal yalla wala yenen la ci wut bu dee ne dane man di lii tuyaaba la ciy wut nga xam ne moom soxlawu ci sax yooyee far gënalu ko ci sax bëggu ko ci sax bu ca am yit moom da caa am waaye moom taxu ko woon a jóg boobaa kon kooku moom yàllaa tax muy def waaye bu dee lii nag lee moo tax nga xam ne moom moom la cay wut moom bu ko ci amul da ci am xol bu naqari ah ñii daal xoolal li ma def yépp te teewul nga xam ne moom loolu la wut moom kooku xelam sax nekkuloon ci ay yàlla dana ma fay ak yu mel noonu taxu ko sax nag di jóg loolee noonee bu dul woon yaa euh, lee mu cay wut ne du ko def sax far loolu mën nañ cee joxe misaal léeg-léeg nga gis nit koo xam ne mën naa xam lool sa aaju xam yi nga ñàkk xam jafe-jafe booy dund wala dara waaye comme que kenn xamul moom du ci def dërëm waaye boo ko fekkoon nag ci digg nit ñi moom fa mbooloo ma toogee bari lool nga daal ku koy diis moom da la da koy faj ci saasi da koy faj ci saa si kooku ndax yàlla tax muy def ka yàlla tax muy def kooku moom la ko gënaloon sax nga bañ ko ko waxee ci mbooloo ba man koo faj te kenn du yëg ndax moom yàlla tax muy def mbooloo mi taxul moo tax gënalu ko sax ñu xam ko bu ko defoon fajoon ba pare gënalu ko nga wax ko bëgg ko boo ko waxee wax ji da koy déranger waaye ki nga xam ne nit ñee tax muy def kooku moom boo ko waxul day bëgg nga wax ko bu la mënoon a kaata ne la waxal waay waxal waxal ne maa def nangam nga ndax nga wax pour nit ñi xam ne moo def wax gi da koy neex lool maam da ci yëg boppam daal ñu koy tagg nag ah diw di moo def nangam moo def nangam bu ko mu mu yëg ci boppam am ci garaat loolaa tax boo ko fekkee ci digg mbooloo ma loo ko fa sant moom dana ko def maam loo ko diis dana ko def waaye ci bu mbooloo ma mënoo wax ba mu def ko nga gis ñoo xam ne buñ ne acoo financé fi sabilillah bu dee ne loo xam ne masalan mbooloo maa toog moom mën naa daal di ca xaacu def ca loo xam ne ñëpp dañuy yéemu wala lu ñuy publier wala dara waaye bu dee loo xam na yow boo ko defee kenn du ci tudd su tur duñ wax ne diw def na ku def daal def nga rek mbir mi nekk noonu ci kees gi boo muy tudd ca def dana loolu moom du doon lu la yëkkati kon kooku yéene ji sellul léegi nag borom bi tabaaraka wa taala moom day xàmmee xam na kii tax moom yàlla ki nga xam ne day jëf ngir yàlla xam na ki nga xam ne leneen a tax xam ngi ñi xam loolo nag ne xam ne borom bi tabaaraka wa taala mi ngi xam suñu jëf xam li ñuy def loolu def ñu jural ñu ciy bàyyi xel ba duñ def loo xam ne bëgguñu borom bi xam ci ñooñ loolu kon fii la ñuy yemaniku tey incha allah ba ñëwaat subhanaka allahuma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka Ramazan angi ve